jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci beaucoup maa raw vraiment ñoo ngi rafetlu mobilisation bu exceptionnelle bi Yewwi Askan Wi wane fii ci terrain ak APES tàccu leen seen bopp d'abord tàccu leen seen bopp dama bëgg président Macky Sall ci palais bi mu toog dégg bruit bi nga xam ni moo am fi terrain ak APS tàccu leen seen bopp. li ma metti rek et loolu il faut le maire de Dakar l'actuel et l'ancien régleel ñu loolu mooy dana amatul terrain bu nu xaj Yewwi Askan Wi amatul téere bu mu xaj Dakar. mais loolu faaw ngeen lijjanti ko mais mënu leen imaginer mënu leen imaginer fan ci ah fan pale pale <laughs> non nanu xaar tuuti foofu soreetul yàggatul gis nga mënu leen xam difficulté bi comité d'organisation bi am pour am terrain vraiment ma bëgg ngeen tàccul ma leen bu baax a baax le comité d'organisation avec Abbas Fall wax ji du ci gudd ndaxte ñu ñëpp xam nañu li war ku nekk xam na fi muy jaar ku nekk xam na li mu war a def gis nga Macky Sall Macky Sall. Le lion, le lion qui dort. Le lion gis nga fii Yewwi Askan Wi ay gaynde yu taxaw te nelawuñu ñoom nga jàkkaar loolu gis nga boo xoolee xar kanam yi xam ni sama gars yi ay gaynde lañu te nelawuñu xefuñu gis nga Macky ci boppam Macky ci boppam xam na ni yoon bi mu jël moo ko gën a xam ni du dem yoon nag boo ko jëlee mu leer ne doo dem ca njëlbeen da ngay président Macky Sall reculer mois de mars bi ma génnee gis jeunesse bi génn ma jël kaddu fële ci place de l'obélisque dama ni ko président Macky Sall dans certaines circonstances reculer n'est pas un signe de faiblesse te fa la ñu gis nga le 16 ne recule waay le 16 ne recule waay kuus xam nga dafa am ñaar yu dajaloo ci sa tur bi xam nga dafa am ñaar yu sa tur bi kuus uus booy kuus uus le 16 na waa ji reculer président Ousmane Sonko gis nga dama bëgg ngeen yokk taxawaay bi parce que sunu démocratie moom la attaqué te sunu démocratie ku ko attaque jàkkaarloo ak ñun il était à nos côtés en 2011 et il sait que nous sommes des combattants 2011 ak léegi am na diir on est encore là à faire face on est encore là pour la démocratie et les libertés et il va partir et nous allons continuer à nous battre cette fois-ci pour le développement de notre pays avec ces illustres personnalités que vous avez derrière. yokku leen taxawaay bi xam ni vous nous avez à vos côtés yokku leen taxawaay bi xam ni on vous sent à nos yokku leen taxawaay bi xam ni adduna bi mi ngi seetaan Sénégal te Sénégal nag ci démocratie ci liberté fii la nit ñi daan rootee si. fii leen nit ñi daan rootee ci résistance donc bu leen accepter des ginnaaw kon le 16 à la première heure à la première heure na ñun ñëpp taxawi tribunal ànd ak sunu xarit le président Ousmane Sonko. dama koy wax guddi ak bëccëg ànd ànd la tuddu ànd ànd la tuddu ànd góor ànd nawle dem ba jeex rek ñoo ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam